organisation bi naka la demee euh, ci euh, wàllum euh, njàngu alxuraan beeg waaye tamit bernde yi nga xamante ni ñu ngi koy joxe donc naka ngeen defee yi nga xamante ne mooy organisation ngir mu gën a yomb ci mbokk taalibe yi ñu mën def liggéey bi. waaw alxuraan gi ni ñu ko bëgg ni ñu ko ni ñu ko ba ko tàmbale di jàng ba ni ñuy yegsee fii Touba ñu nekk ci di ci jàng kaamil bi di ci di ci di jàng ay lim suba ñu bëgg a taxawale programme bi ci anam goo xamante bu ñu xëyee suba. dañuy tàmbali bu 7 heures jotee dañu bëgg tàmbali alxuraan gi di jàng alxuraan ak di durus xas day ba ba ñu julli tisbaar bu ñu jullee tisbaar ñu ñu may nit ñi ñu dallu julli ñu jubli ci añ bi joxe berne yi ñu añ bu ñu noppee mun naan li ñu naan ci eh, lu sedd ak lu tàng ba boori 6 heures ci ngoon ñu tàmbali prestation xas day noonu lañ ko jëm fajar incha allah. Euh, nekk xamante ni moom mooy euh, mën nañu wax ne kër Serigne Saliou la donc yéen liggéey bi euh, fa ngeen si jamono ji ak màggal gi gan yi nga xamante ni ñu ngi ñëw gi di mel. bi bi ñu julee ci bi bi ñu sant yàlla jul ci salaam di ñaan sëñ Matoulaam Mbacke mu sëñ Saliou mu yàgg fi la tuwér xanaa ni ko sëñ bi bëggee rek jàpp naa ne ci lañ nekk ndax liggéey moom ni ko sëñ Tuubaa wax rek jàng jàng alxuraan jàng xasida bernde mais ne ku dégg ña xasida yoo xam ne nit ñaa ngi ci xasida yi ñoo ngi durus ñoo ngi jàng alxuraan ñoo ngi berde de gi daal mu dugg yàlla xanaa taw fee rek waaw ndax gisee gisee kër sëñ ni demee ak nit ñi fu ne lañ bàyyeekoo ñëw si bi daal euh, màggal gi moom tarkeer la waaw ndax daa tàmbale daa tàmbale mel nii kon daal suba nga xam ne suba kenn xam ne muy nga xamante ne euh, euh, ne nga bëgg di ko xéwlu. waaw dañuy waajal bernde yoo xam ne yaatoo yaatu xam ne tey jii ku fi ñëw rek daanaka wàllu bernde xéwlu wàllu naano wàllu wàllu café wàllu tee lépp mbokk taalibe yi fàggu nañ ko ba xam ne looy bëgg rek moom jàpp na waaw dëgg yàlla lépp daal moom sëñ bi mat na waaw sëñ daal moom dëgg yàlla kër gi daal moom euh, tarkal la Mawa Ndiaye la. mais ne yaa yor lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu collation wala restauration. donc loolu lañ mën a jàppagum ci li nga xamante ni moom mooy plan d'organisation bi nga xamante ni euh, teg ngeen ko ngir ñu mën a euh, jublu ci li nga xamante ni lépp jëm ci màggal gi fii euh, fi xamante ni moom mooy kër sëriñ bi waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi waxati jërëjëfe Serigne Touba jaara maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp barkeb Serigne Saliou ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mourtada sunu borom may ko fanu gudd lool bu ànd ak wér ba naal yi mu naal yëpp mu matale ko ànd koog mboolem taalibe yi ah, ñu ngi kontaan bu baax ci euh, laaj bi nga ñu euh, jagleel euh, kaddu gi nag dañu ko jox rek moo tax ñuy wax ci turu mbooloo mi nga xam ne nii ñoo amal liggéey bu am solo bii ndax bës bi nga xam ne nii moom lañ dëgmal suba incha allah muy 18 safar daf ci am pàcc bu ama am solo boo xam ne nii moom la ñu dénk mu jëm ci wàllu bernde yi ah, bernde yooyu nag. anam bi nga xam ne moom lañ ko daan defee moom la ñu taaral ba tax ñu def espace de restauration bi nga xam ne nii mbooleem koo xam ne day ñëw ci kër sëriñ bi ah te aajewoo xewlu su ko defee da ngay mën a yegg si fii ñu defar décor bi macha allah gis nga ko ni mu demee bu ko defee nga am xemmemteef ci ñam yi nga xam ne nii moom la ñuy joxe su ko defee nga mën a xewlu ci anam bi gën moo waral ñu créer espace de restauration bi nii. mel ne am na plan boo boo boo teg organisation ngir euh, liggéey bi gën a mën a yemb donc est-ce que mën nga ñëwaat ci loolu nga xamante ne def ngeen ko ngir yombal liggéey bi nga xamante ne moom moo jëm euh, ci wàllu euh, restauration beeg wàllu màggal ko. waaw lii ci ginnaawam ay waxtaan yu am solo yoo xam ne nii doon nañ ko amal ngir waajal ko ndax lii innovation la ndax ren jii lañ koy soog a tàmbali ndax ci beneen anam lañ daan xéwloo. waaye dañoo gis ne jamono day dox te buy doxit nit ñi dañoo war di euh, maanaam doxal seeni mbir moo waral ñu ñu ñu def innovation bi euh, waxtaan nañ ci nag ay waxtaan yu yaatoo yaatu euh, tey le 17 safar bi lañ ko expérimenté ginnaaw bi ñu ko defee ci añ yi bi ñu xewloo ba noppi toog nañ def évaluation par rapport ak li nga xam ni moom lañ jotoon a amal am ay maanaam coppite yoo xam ne nii jot nañ ko cee def ngir yenn rëq-rëq yi nga xam ne jotoon nañ ko cee jànkonteel ba ñu ngi waajal nii reer bi nga xam ne nii bu ñu duggee ci 18 safar incha allah dana fekk ni ñu ko bëggee woon bu ñu ko mënoon am à 100 pour cent danañ am satisfaction ak 80 pour cent incha allah. salaamaaleykum bokki taalibe yi ñu ngi leen di baax a baax a baax di gërëm eh, effectif bi ñu àndaloon maanaam ci def-def bi nga xam ne moom lañ def ren muy eh, soppi niñ doon xewloo ci biir kër sëñ Mourtala Mbacke mi ah ñu gis ne yàlla defal nañ ci sutura ba liñ ci bëggoon ah def nañ ko añ bi tey. le 17 bi le 18 ba le 19 incha allah dañ koy wéyal pour euh, lépp jàppandi ndax euh, àdduna day dox te jamono daa soppeeku kon foog rek ñu indi ay beesal wala ay soppeeku yoo xam ne dañ koy def di gërëm nag mbooloo mi yëpp yëpp yëpp yëpp sama jarbaat yeeg sama doom yi ma àndaloon ci liggéey bi ñu neex a àndal lañ alhamdulilahi rabil alamin ñi ngi santaat bu baax a baax a baax a baax di sant sëriñ bi di ko ñaanal yàlla wàcc ko fi ñu nekk ak moom ba ci kanam a kanam waa tawfeex ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen tam leen ñaanal jàmm ñu fekk ay déwéni déwén bi jaay nabil Moustapha yàlla leen ko yàlla defal defal ko mboolem jullit waañ bi. waaw fii ñu nekk nii mooy accueil. waa ñoo ne yor ci wàllum dalal gan yi daal bu ñu yegsee waaw. kon bu mënee jàpp fii euh, ci wàllu euh, bernde lan moo fi am ci li xamante ni ñu koy jox mbokk taalibe yi. waaw euh, wàllum berndeel moom li fi am daanaka yaatu na ndax bu ñu xoolee dañoo tàmbale dañuy def 17 18 ak 19 safar ñu ngi tàmbale ci ay bi ñu jullee tàkkusaan ba noppi maanaam 17 heures ci lañ tàmbale berndeel yi eh, kii amoon na fi café was meew gerte tàngal beñe yooyu yëpp lañ doon joxe daal ndax niñ tàmbali woon ci koon gi waa moom la ñuy joxe bu ñu joxee yooyu ba noppi comme ni ma ko waxee woon rek après nag ba nga dal ñu soog lay jàllale ci biir daal lay jox yeneen xeetu bendeel yi ñoom firweeg yeneen yi daal comme tey la 17 daal waaw ndax bu di suba 18 bi su suba bu 18 bi ci la ñuy gën a yaatal mbir yi maanaam suba moom dañuy yendu sax lay doon su gi lay doon daanaka ba guddi boobaa nag ci la yëpp di génn xeetu bendeel boo boo xamante ni rek dina taw féexee ci bésu uh, borom maam maam borom Touba bi ñu daal koy jox uh, suñuy gan ay zamin ni laaw hinda jeewali iblisa is naadaytu bi awali ay zamin إبليس إذ ناديته بيا ولي man Baye Fall de lañ may wooyee. ñu ne Baye Fall tey nga ñëwoon euh, euh, accompagner sa benn jë sa benn jëru wala boog sa benn xarit bu ñëw ànd si jëf fi nga xamante ni mooy kër euh, si Cheikh Saliou ci li xamante ni moom mooy wàllum màggal gi donc tey naka la gisee jëf ji nga xamante ne am nañ ko tey. waaw ginnaaw ba nu sant sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di sant sëñ mun Mourtala saaliw mi nga xam ni mooy di sa sëriñam ñu ngi koy sant bu baax ci jëf ji ndax yoonu murit moom jëf la yàllay fay. te jëf joo xam ne àndut ak ngistal ndax dëgg ci moom ndax nit mën naa tricher lu ne ba mu des te moom sëriñ bi ku ko jëfal lay fay sëñ Tuubaa ku ko liggéey lay fay liggéey bi nag moom mi nga xaye sa borom dogal na moo ko jëfe ndakaaru ànd ay soxnaam ànd ak yaayam ànd ay wëllëreem ànd ay xaritam moo ko mën a détaillé waaye jal bi ku ko gis xam ni maanaam du jëfantu ay jëf yu rëy la ay jëf yu yaatu la yu ànd ak Pastef ngir jëmmi sëriñ bi ndax sëñ Tuubaa dana ginaar ba ci gileem nañ ma ci sant yàlla kon moom sant gi maanaam da koo yaatal jëf ko teg ci ñëpp teg ci seen bët te wolof yi nee nañ teraanga bët kon Sadio dana waxal boppam jëf ji ak mu wéral gi ak détails yi nga xaye moom li koy jëf dana ko xam Sadio bisimilah. jërëjëf Sadio ñu ngi euh, leen di nuyu baax. maa ngi baax a baax jërëjëfe sëñ Moutalla Saliou mu sëñ Moutalla Saliou jërëjëfe sëñ Moutalla Saliou tey ji ñëw fekk la fi nga xamante ni mooy kër sëñ Moutalla Saliou nga ñu sa jëf nga xamante ni moom mooy màggal gi euh, donc bu nekk jëf joo xamante ni euh, mun nañ jàpp ne at at yaa ngi koy def jëmle ko ci ki nga xamante ni euh, njabootu sëriñ Saliou la donc jëf ji boo ci mën a ñëwaat tuuti ci li nga xamante ni moom mooy ci wàllu màggal gi ak ñaata at ci ren ngay def li nga xamante ni mooy jëf ji waaw xam nga tey sooy xool may tàmbali lii ma waxoon mënu ma ko woon waaw tey su ma damaa tàmbali ci benn ba tey yàlla def may gaare camion di wàccee lépp lépp xeetu fruit muy ndox muy boisson dara manqué wu. tey jii may wax ak yow man taalibe rek laa comme ni ma koy waxee sama jëf ci sëñ mu Saliou su ma xasee ba jëf fàtte naa parce su ma sañoon tey ay camions yi camion yi camion laay gaare fii parce que man aw ma lu aw ma sëñ sëñ bi ma dimbale moo ma defar kon man. sama Pastef ci sëñ bi sama ëpp na lii ëpp na lii te nii laa ko fas def te chaque at maa ngi ñaan suñu borom jéego bu ma toog teg yokk beneen jéego loolu laay ñaan te ñaan naa ko sëñ bi dagaan naa ko ko nee naa ko bu ma yërëm ci lenn man daal sëñ bi naa gudd fan ànd ak wér ba ma yéene sa kër gi suñu borom. ak sëriñ Tuubaa ma talal ma mu mel ne jëf ji mu mel nag nekk loo xamante ne koo xeeb waaye nit ñi eh, yéem na leen ci li nga xamante ne moom moo nga jëf ci li nga xamante ne mooy màggal gi ah, donc message bi nga ne mu ngay ñaax eh, ñi ne mën nañu wax ne eh, Sénégal lañ nekk yor ay ay teraanga a jëf ci màggal gi donc message boobu ban message lay nekk. xam nga tey sëriñ Tuubaa li mu wax dafa leer ba bi ñaanu ci kenn nee lu ma ci waay defal ma ful ko kon tey yaakaar naa ne kon sëriñ Tuubaa ñun amuñu lu ñu sëriñ Tuubaa nee naa ba su màggal jotee te lépp jàppandiwul dinaa jaay sama oto ak lépp lu nga xam ne xalaat naa ko ne su ma ko jaayee def ko ci màggal gi dinaa ko def parce que man aw ma lu dul Serigne Touba aw ma ku dul Serigne Moutala Saliou kon yaakaar naa ne tey lépp lu ma am muy màggal gi damay ñëw indil ko ko waaw te loolu laay woo bépp taalibe parce que tey comme li mu wax sëñ bi nee na maa mujj ci kër gi waaye jéego yi ma fi dox kenn dox ko. xaalis neex na lool waaye nag bu ñu fàtte ne ñun màggal bi dafa am luñ ci war parce que sëñ bi mënut a def lépp kon yaakaar naa ne ñi nga xam ne tey jege nañ ko te yàlla dimbali leen foo ak fu mu ti doon kër diina bu mënti doon war nañ di jàpp ci bésu màggal ba def ci li nga xam ne nii saa képp ku ci gis li nga xam ne yow mii kat sa kër sa sa sëñ gis ne yow doonoo ci yaafus te ñun noonu lañ fas yéene doxa taalibe rek. taalibe rek. waaw benn message benn message bu ndaw booy lancé mbokk taalibe yi ak ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan saa su nekk ban message lay nekk. waa li ma leen di lancé daal mooy. ñu ñëw ñu nekk ci liggéey bi. parce que Serigne Touba amul tànk ginnaaw man ci benn laa bi may ñëw ab ngëb laa xaalis bu ndaw laa tàmbalee ba tey sunu tey mën a mën a gaare ay kon nga war a xam ne kon Serigne Touba amul tànk ginnaaw moo ne soo ma defalee loo man ma defal la lu la yéem soo ma defee lu ma mu loo munul ma defal la lu la jom kon yaakaar naa ne tey ñun tànk yooyu lañ taxawee ci kër sëñ nee nañ ko bu ñu yërëm ci lenn bu ñu yërëm ci lenn loo ñu tegoo ñu tegoo ko. gis nga ab yokkute bu baax waaw yokkute moom loolu yaakaar naa ne loolu moom tey jëpp gis nañ ko parce que yaakaar naa ne ba ma ko daree def ba léegi amul arrêté wul dajawoon nañ fi daaw dajawaat nañ fi ren damay ñaan yàlla. barke borom Touba ñu fiy gën di daje te yaa bëgg naa ànd fi ma bëgg li ma bëgg dëgg mooy di ko tàmbalee ci bunt ba di ko jóor ba egg si fii te ñaan naa ko dogu naa ko ci sëñ bi ak sëñ Touba mu defal ma ko waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm ñi ma àndal samay soxna ñi nga xam ne ànd nañ ak man samay dëkkandoo sama ñoom waajur ñëpp ànd nañ ak man ak samay ñi nga xam ne nii tey ñu ngi bokk liggéey bi. ànd ci ak man ñoom ñëpp maa leen di gërëm di leen sant di leen bàyyi ak Serigne Touba mi am pay mu payal ma leen waaw kontaan naa bu baax a baax jërëjëf.